Bienvenue sur Salam Vision. waa koñ bee kaay leen seetaan xoobar ñëw na ayca mu ngi noonu kaa leen seetaan lu am solo su baaxee ñu dem waar waaye jàpp naa ni vaar du doy waar ndax moot xobar xobar ant srs mooy suñu waar ah si beneen niveau si beneen level ak si beneen scène ah nee naa la Salam Vision lay doon boo ko bëggee vie moot xobar xobar ayca mu ngi noonu bul ko ragal aboneel bul ko ragal emeel bul ko ragal commentéeral man garaawul lu waay wax tàmpi amul benn problème Messi ngi ne ba dalee wax si moom ba léegi taxul mu njool eh ayca mu ngi noonu que muy tiim caméra bi nag mooy eh, ayca sama xarit sama xaali xëy na nii la toll waaye bopp bi macha allah muy dàmm yàlla na sa jàmm yàgg sénégalais nag laa bëgg a waxal tuuti rek lu ndaw dañoo nekk si moment bi nga xamante ni Coupe d'Afrique la CAN la. ñun coupe bi lañ soxla joueurs yi duñu ay gaynde ay nit lañ ngir yàlla ak yonent bi bàyyi leen bu équipe bi du football ngeen naan yàlla na gaynde yi am ndam dee neen ñaanal joueurs yi ba ngeen dalee ñaanal gaynde yi ba léegi 1959 ba tey ba na amee indépendance ba tey yéen a ngi ñaanal gaynde yi ngal la waay 2022 bi ñaanal leen joueurs yi parce que heure bu ngeen ñaanalee gaynde yi ñaan gi dem parc an gaynde yi jàppu nit ñi di lekk rek buñ gisul nit ñi jàpp seen mbokk rabu àll yi di lekk rek kon léegi nag ren bu ngeen bëggee coupe bi ñëw ñaanal leen gaynde yi te yéen ñi sant Njaay ak yéen ñi sant Jóob bàyyi leen seen kalante bi ngeen koy indi si équipe bi dafa am jour yoo xam te ne bu ñu santee Njaay si équipe bi gis Jóob bu sant Jóob duñ parce que sant Njaay ki sant Jóob du parce que sant Njaay ndax lan kalante senegal loolu doxalu ko réewu teraanga la jàmm la te sénégalais gën a ñàkk xorom sénégalais moo gën a ñàkk lu mu commentaire yéen yéen a ngi jàpp pël la fuute yi mat si nii la ñoom pël la fuute yi nga xamante ni ñun sekk ñoo ñoom lu dul jàlloo jaay ma loo bëgg ma jaay la jàlloo jaay ma wecc ma ñun loolu lañ sekk ak ñoom ngeen football ak ñoom quatre-vingt-dix minutes cinq minutes non tir loolu je doyu ma de ba pare ngeen jàpp arbitre bi si commentaire yéen commentaire yu leen si jour yi jour football ngeen jàpp arbitre bi si commentaire arbitre bi handicapé la mais bàyyi ko noonu la ko yàlla bindi ngeen si biir terrain bi parce que yéen a ko footey mat ñun ngeen jàpp ngeen ki ngeen xamante ni mooy Zimbabwe yi ngeen dóor ko par accidentel jàpp pël fuutay mat si ñoom jàpp ngeen maleng yàlla def ngeen gañe ko foofu nag moom damay kalasque coach bi mais garaawul Sénégal amuñu coach Sénégal maaraa la ñam Aliou Cissé capacité teg ko fi sëriñam moo ko fi teg bàyyi leen loolu xel santal ka maaraa de boo sante yàlla julli si yonent bi sant say ñaari waajur bu dee yaa ngi leen sant santal sa maanaam man biir na ma ne sa maanaam bi nga gën a sant ak say ñaari waajur ak yàlla ak yonent bi man xam naa loolu li tax amul capacité de coach Aliou ay boo ko fekkee fu muy coacher nga war a fekke Aliou Cissé fu muy coacher rek bal bi taxaw rek Aliou Cissé woo joueur yi tiim la di waxtaan ak yow nga foog ne danaan joueur bi taxawal excentré kii day jàpp rétérale bi bu jàpp bu duutee rétérale bi jox la ko yow nga duut accès bi du la wax loolu de day woo ba nga ñëw nga yaakaar lu la lay wax mu ne maroo ma may la nga naan maroo naan maroo naan bu fekkee da ngaa man naan waxal yi wax leen Aliou Cissé leen bës a wax 4 wala 4 3 ko wax Aliou Cissé te nag yi ñemewul ko de dalay vocal ne la bëgg na équipe nationale nga ne ko waaw mu ne la wéer ma wala nga orange mo ne ma wala nga wari ma ak a yàgg soo ko fayoo doo football <laughs> mënoo ko bëgg gi xool moom nag moom gaynde la moom gis nga la sàmmi gaynde la ngallaawaay dimbali leen ñu ngir yàlla ak yonent bi moo xobal mooy wax man garaaw lu waaye commentaire baax na amul benn problème man du ma ragal géejawaay laa juddoo màggee Grand Dakar yaroo Grand Yoff jàngee ak Grand Médine dem si waat géejawaay jaar kàcce kàcce tous tasaar dara du xew commenté leen bind leen def leen lu leen neex Salam Vision la fii ragal nekku fi damay tëj nag ñun Camerounais yi sàcc nañu woo suñu jour yi keneen leen pandémie loolu doyatul ñu quarantaine leen zone yi fépp na sàcc fépp la fekk baax ñoom ay sàcc lañ léegi nag ñun fexe nañ ba jour yëpp ñëwaat def retrouvaille ñu jàpp ñi nga xam ne mooy Malawi gañe leen waaw Malawi laay may lii dinaa tàpp lu xam naa yaa tàpp ko lii tam patara puuta kooku boo ko déggee benn bàmbara bàmbara bi xam nga mala wi dañu bëri ay bambara bambara bi mala wi la jógee ñëw fii Sénégal ba mu ñëwee nee daa bëgg liggéey man nag ginax laa damaa bëri pax boobu maa ngi doon garder port autonome de Dakar mu ñëw fekk si ma ne ma binaata bul xinaaya ma ne ko jaajëf mu ne ma tànkulita ma ne ko mbaarikeel mu ne ma liggéey laa bëgg ma na ko ah kon dégg nga wolof Youssou Ndour da war na ko fi wiri wiri jaari ndaar dama doon xaar rek ma ne ko fii liggéey dox na fi moom wax dëgg yàlla ak yow ni nga toll te boo gisee bambara bi dafa toll ni Bombardier ñu jël Eumeu Sène roof si jël Tyson roof si jël Ama Baldé roof si jël Balla Gaye roof si jël Lac de Guiers roof si jël eh, eh, Yawur Dia roof si jël roof si jël Alioune Sall roof si jël Macky Sall roof si nga ñu gis nit la. ma ne ko yow moom nii nga toll rek làmb nga mën a def mu ne ma damay ray mbër yi ma ko da ngay ray mbër loo bëgg sa waay jékki-jékki ndekki li ñuy wax yëpp mu ngi visé benn conteneur mu ne léeg-léeg bëgg liggéey di ko déplacer wala mu koy yenu ma ne ko conteneur mu ne ma ma ne ko d'accord fii de moom liggéey bi mu gën a bëri loolu fay bi day gën a bëri sa ñu yen ko ñetti conteneur ban ko yenee ñetti conteneur automatiquement dañ koo yen rek ba di teppeeku bët yi daa teppeeku ba fii sa waay mënul bouger mënul def dara pour moom bu bouger day dee mu jàkkaarloog ma naan ma xiwir xëppoon ma ne ko loolooy lan mu naan yeneen këf ma ne ko loolooy lan ma si laa woo dem malien mbër moom it bambara la dégg na bambara malien ñëw ne ko mu tam mu ne xiwir xafoor yi malien yi nee na ngeen yenn ko mu xef ndekete ban ko yéenee bëri dafa teppeeku ba mënta xef ayca mu ngi noonu loolu waa Malawi laa ko doon may dóor nañ leen neexal naa leen ku ne dem na moor xobar xobar la anti stress fii Salam Vision ayca dee leen ko cons cons mu lay neex par force fala force doole mbaam da nga koy vi deuxième bàkkaar daam laa àndaloon sama cadreur bi moor xobar xobar de retour 2 point tout basar dara du xew Bienvenue sur Salam Vision. Bienvenue sur Salam Vision.